dañ xamul tef teeru bi boo leen xoolee teeru bi par exemple boo leen gisee ni mu mel gis ngeen ne digg bi dafa am ay vague ku fi dëkk soit à gauche wala à droite fa ngay jaare donc à gauche ou à droite ngay jaare léegi boo fi xamul da ngay jéem a jaar si digg bi boo jaaree si digg bi tu risques d'avoir des problèmes léegi problème yooyu nga am nag moo indi moo indi jéyee yi nga xam ne ñenn ñi peut-être tëb nañ pour génn mënuñu mënuñu fay gaal gi sëy après au delà de une heure du matin xam naa loolu daal booy xool gaal gi boo koy xool gaal guy dem Espagne gi boo koy xool amul raas amul fu nit ñi mën a tëdd pour mën a reposer wu constat boobu ngay jëkk a xool boo nekkee euh, pêcheur da nga xam ne ne gaal gi du gaalu gu mën a dem Espagne xam nga Espagne dafa bëri lu bëri lu si ne dafa am ñoo xam ne ne dañ si dóor mais gaal gi ku ko xool xam na ne sérieusement du gaal gu war a mën a dem Espagne koo xam géej du si ci mbir moom la des nga xamante ne jëwriñ go njëkk gi